nekk da nga xër ci sa nit te nit ki moom boo ko dégloo rek euh, ci koo xamante ne gëm na ko rek dana ci wax loo xamante ne dana jéggi dayoo li mu fi wax nii wax naa lu ko raw ci Macky Sall parce que Macky laa faral donc loolu tamit dañ koy jàppee ne euh, xëy na ci période bi loolu lañ toll mooy maanaam jëmmal suñu bopp dëggal suñu bopp parce que nag ñun mairie bi dañu ko bëgg parce que dañu jàpp ne mën nañ ko liggéey mais dañu jàpp ne aussi légitimement jot na ñu jox ko ñi nga xamante ne ñoo ko yelool waaye ñun jàpp nañ ne aussi euh, tey euh, dynamique yi ñu jëm euh, il vaut mieux quand ñu ñu xool naka la ñuy def ba ñeneen tànte leneen pour li nga xamante ne dafay gën a jëmmal gën a taaral dëkk bi. tànneef moom yàlla moo ko mën te sama dernier moo bi ma wax ci sama discours lu leer la nee la àdduna yàlla mooy tànn li nit liggéey la am. ñun liggéey nañu te leer nañu ne que la waroon def yëpp def nañu ko bu ñu tànnee danañ ci def fulla gu toll ne ñu indi ndam bu ñu ñu tànnul aussi dañuy ñaan yàlla mu may ñu xol boo xamante ne dinañ ko mën a nangu ba wax loo xam wala def loo xamante ne lu doyoo di lay doon.